président Macky Sall euh, xam inauguré à péage le 1er août 2013 Il a décidé aussi de continuer autoroute bi de donc nous inauguré ko réceptionné en 2016 novembre 2016 président Macky Sall fait instruire son gouvernement pour renégocier renégocier contrat tout à péage pour rééquilibrer l'État état am ci donc négociation négociations eu lieu le 22 décembre 2021 l'année signé contrat pour négocier une concession au tout appel, cest SECA wala Eiffage ci loolu année bu njëkk bi 14,5 milliards de mu dans am avant 14,5 milliards ci 3,2 3 milliards 200 intéressement am en tant que investisseur intéressement bi am en tant que en tant que actionnaire mais aussi intéressement bi état di am revoir la redevance manial donc 14,5 milliards l'État du Sénégal am mais président Macky Sall faut aussi instruire son gouvernement de New York puis autour de de à de du Yoko jusqu'en 2025 ci loolu aussi dañu yoko sécurité ak sûreté nous ñu yoko éclairage le long du tracé de FH de ko SECA AIBD ci loolu aussi dañuy war a mën a ñu xam dañuy yokk ay investissement yokk ay voix ci ci ci ci xàllu yi ci deux huit deux fois huit voies fii ci Rufisque ak yeneen i gaar pour que ñu am ay passage automatique c'est-à-dire oto yoo xam ne dañuy ñëw barrière bi day jóg balaa nga yegg ci barrière bi nga avancé donc loolu la ñu amoon lu ñuy wane tey ngeen xool investissement yu am solo yu mucc ayib yi ngeen gis moy auto yi moy camion yi moy équipement yo ñoom assurer la sécurité ñu assurer la maintenance et les réparations sur la concession état du Sénégal seka légui momelam la soko xajé ci ñenti xaj benn bi état du Sénégal moko mom ci seka état dina participer ci conseil d'administration, administration ñi koy gérer ñi koy xalal ay ñi jël ay décision am nañ ci ay trois administrateurs ñu xam ndaw état ñoo représenté APIX moy suñu rôle dañu conduire négociation yi ba paré continuer de surveiller naka la SECA war respecter les dispositions du contrat mais aussi entrer, ñoo xam ne utiliser au autoroute à péage. xam nga waa xam nga concession euh, il faut ñi ñi xam ko état dafay joxe suuf joxe ay conditions nga investir yow kese walla nga investir ak état su concession bi jeexee li nga investiroon ak ouvrage bi yëpp état moo koy moomaat comme day donne après moomeelu état te yooyu dafay am ay entretiens yu am solo tous les cinq ans nous avons une concession de 5 ans pour nous préparer euh, entretien la réparation pour que ce qui est wara joxat Sénégal joxat Sénégal autour à péage bo xamné dafa am dafa baisse dañ ko entretenir mu nek ci ay loxo yu am solo mais batay même so yokka so yoké 5 ans état aussi dafa nek actionnaire non motax concession bi waron jeex 2039 dañ ci yok 5 ans mu dem 2044